motion de censure bi Ousmane Sonko premier ministre Ousmane Sonko était député avant c'est quelqu'un qui avait beaucoup fatigué les députés de la majorité c'est quelqu'un qui boo xam ne daawul may jàmm les membres du gouvernement bi ñëw à l'Assemblée tey yi les rôles ont changé euh, <laughs> ñu nekkoon gouvernement ñenn ñi xam ils vont reprendre leur poste de député lui il va être le premier ministre et va venir à l'Assemblée nationale naka ngeen ko nar a nar a a teertoo ci parce que ce qui nous intéresse c'est pas la personne du premier ministre Ousmane Sonko. vous n'êtes pas revanchard. ce qui nous intéresse c'est ce que ce que li muy indi. jëmale ko askanu Sénégal contenu bi. loolu moo soxal. mais pas l'homme non du tout. le premier ministre parce que quelqu'un qui s'attaquait beaucoup. Non, aux premier... hommes du pouvoir. oui du ngeen adopté même même kii bi. du ngeen amu leen rien contre moom. non nous sommes une opposition boo xam ne républicaine. on on s'acharne pas sur la personne du premier ministre. newu leen ci loolu. non du tout. ok ce qui nous intéresse mooy lan la indi pour askanu Sénégal ñu xool la ciy njëriñu askan wi ñu loolu moo ñu moom moo ñu intéressé. et vous avez les moyens de de nan la ko mën expliquer. ngeen saytu bu baax a baax li mu indi ba xam méngoo na ak bëgg-bëgg Sénégal da ngeen def benn comparaison ak PSE wala comparaison ak volonté sénégalais yi pour nangu ou rejeter ce qu'il a à à vous apporter. waaw li ñu indi daal nekk loo xam ne rek njëriñu askanu Sénégal parce que xamaguñu. y avait des propositions qui ci seen campagne bi. waaw euh, sortie franc CFA bi euh, déplacement euh, capital bi moyen de pouvoir aux étrangers ay mbir la yoo xam ne souvent dañ ko doon te ñàkkul mu ngi seen projet bi yu mel noonu lañ lay indi sans sans doute tant que ñëwut du ngeen ko mën a wax ay wax la woon mhm. te des engagements des promesses peut-être ça va évoluer aussi mhm. voilà ñun li ñuy intéressé mooy li muy indi li muy indi loolu la xool mhm. xool ndax njëriñu askan wi la ndax faisabilité bi lu ci askan wi mën a gisee seen bopp et cetera et cetera ñun loolu moo ñu soxal mais personnel personnage wu Ousmane Sonko premier ministre wax dëgg yàlla on s'y attarde pas. Mhm. on s'y attarde pas c'est le premier ministre du Sénégal. donc motion de censure nekkul pour mu am pour ok le président la République on l'encourage pour si le président Diomaye pas. <laughs> c'est vrai on n'aura pas du temps. mais c'est ça mhm. donc ñun liggéeyuñu pour ñoom ñu bañ a réussir mission bi leen Sénégalais yi dénk. pourtant nag on dit que certains de vous loolu rek lañ bëgg pour wane ne les Sénégalais fait une erreur en leur donnant le pouvoir. non loolu yéeg xam nga moi je respecte beaucoup le peuple sénégalais le peuple sénégalais dans sa majorité a porté son choix mhm. sur un homme muy Bassirou Diomaye Faye et au-delà de Bassirou Diomaye Faye le peuple a plébiscité son premier ministre Ousmane Sonko mmh. ça qu'on le veuille ou non ça la réalité il a été le porteur tutélaire du projet donc nous respectons la décision du peuple sénégalais qui est le peuple est souverain. Mmh. Maintenant, nous, sommes dans l'opposition, mais cela ne nous pousse pas à, à faire la même politique, les, le même, avoir le même comportement, poser les mêmes actes que avait. Donc, donc le, le, le, le porte-parole du gouvernement, il a parlé pour rien, il a parlé dans le vent. parce que ah amu leen def defu leen seen xel wàcce wàcce gouvernement bi. non moo tax ma ne loolu moom moo ko moo ko agité c'est pourquoi je dis que a fait une communication maladroite. Mm -hmm. un porte-parole du gouvernement franchement n'ouvre pas une fenêtre comme ça. Mhm. nous on a même pas parlé de censure indi benn c'est lui voilà. qui a amené le sujet. et qui s'est montré menaçant à l'endroit. et du ngeen plié wu ci benn menace. non du tout. je je c'est à l'Assemblée